waa asalaamaaleykum hmm. yenn waa ndaw département bu Mbacké maa ngi leen di nuyu bu baax euh, di di di nuyu ñi nga xam ne nii ñëpp ay ndaw la nekk ci département bi di kontaan bu baax si euh, ndaw ñi ni ñu taxawoo takku ci Covid 19 bi euh, di di nuyu nag ndaw ñi nga xam ne ñoo ñoo nekk ci. Eh, dëkk bi di def ay proximité pour sensibiliser nit ñi di waxtaan ak ñoom mais démb dama tëdd dama tëdd après ma gis ay ñoo ay ay ay ay ay nit yoo xam ne ñi ne dañuy défendre ministre de la jeunesse pour ay ndaw yu koy attaqué fii ci département bi benn ma wax leen ñooñu boo xoolee ëpp leen trent trente cinq ans kon amul ay ndaw yoo xam ne nii ñoom jiite nañ leen fii ci département bi te benn Euh, ministre de la jeunesse na wax moom ban fonction la mos a jiite avant Macky Sall di nekk président de la république ministre de la jeunesse nee na Fatoumata Tall na wax lan ban fan la mos a liggéey avant pré avant président Macky Sall kooku tey mu ne day jiite ay ndaw ndaw ñi bi ñu commencé liggéey dañoo xam ne ne Fatoumata Tall nee na Fatoumata Tall président Macky jël ko nommé ko PCA xam nga président Macky mooy jël ko ko neex koo xam ne tekkiwul dara démb ak bërki dem di ko di ko jël di ko teg ci kaw ndaw ñi mais ñun ndaw ndaw opposition bi nga xam ne fii ñoo nekk ci département bi ànduñu benn yoon ak Néné Fatoumata Tall si benn nenn Fatoumata Tall mooy ministre de la jeunesse bu gën a nul depuis. entre depuis président Macky bi mu fi nekkee ba léegi ñun ndaw ñi dañoo gëm ne amuñu ministre de la jeunesse ndax nee na Fatoumata moom man gëm naa ne moom du ministre de la jeunesse boo xam ne nii war ndaw ñi war na noo am si moom yaakaar pour am ay pexe ak ay ay ay lu ñuy bëgg wala lu nuy bañ ndax nee na Fatoumata Tall benn PCA la la ko fi Macky Sall nommé def fa dara ñu jox ko ministre la de la jeunesse ministre de la jeunesse moom. bu mel ni Néné Fatoumata Tall mosuma ko gis ba ma nekkee ba ma nekkee Mbaara Juufam ak léegi beneen business mooy euh, Néné Fatoumata Tall li mu war na njëkk a lijjanti bi mu nekkee ministre de la jeunesse mooy xaalisu Prodac gu ndaw ñi ndax ndaw ñi man ma nekk ci opposition bi ci laa bokk ku nekk ci pouvoir bi ci la bokk te ñun ndawu senegal yépp loolu suñu xaalis la kon moom loolu la war na njëkk dem lijjanti ci Mame Mbaye Niang mi nga xam ne moo nekkoon ministre de la jeunesse avant muy nekk di def ay affaire tappaleem di di wax ay conseil national de la jeunesse kërëb kërëb xam nga réew réew kenn du ko yor si ay caaxaan te ñoom ñoom ak présent président Macky Sall li ñu yore réew mi mooy nekk di caaxaane réew mi mais bés bu leen réew mi di rëccee dina xam ne lépp dëgg la maa ngi leen di nuyu nag di leen ziar yéen ñëpp di kontaan bu baax si dalal bi ngeen ma dalal pour ñu waxtaane réew mi di kontaan bu baax.